mais comme ni ko dafa waxee ah ñoom li ñuy dem foofu pour gagner kuy dem si ay jongante da ngay dem pour gagner ni mu ko waxee nee na am nañu équipe boo xam ne ne mën na gagner championnat yi parce que ça des années ñi ngi xaar Sénégal gagner euh, championnat championnat d'Afrique bi donc euh, di leen ñaanal vraiment ñu suñu demee foofu ñu mën fa rehausser le drapeau national avec cette mouvance de victoire bi ñu am actuellement dans le football ou dans d'autres le manko là que nous avons il faut que ñoom tamit le manko dem uti ndam li te Tafa il est il est il, il a les outils c'est un grand entraîneur ah et puis man rencontré naa ko en en 2016 avant les Jeux olympiques parce que woowoon na ma ma ñëw waxtaan ak euh, joueuses yi wax leen sama expérience olympique et tout ça nga xam ne moom euh, xalaatam tamit euh, màcc na si si yu bari parce que dina jox un peu un plus à à ces Euh, waxtaan ak ñoom comment ça se prépare des Jeux olympiques comment soo demee Jeux olympiques comment ñuy mel yëpp donc te xam naa ne am na ñeneen ñu mu jël tamit ñu mën a waxtaan ak xale yi et puis c'est des comme ni mu ko waxee ay ay xale la yu si nekk ak ay mag parce que tamit ay mag y a l'expérience ça joue aussi ah ñu mu jël ñu am ay expérience la ñu donc équipe rek doo ñëw rek changé ko totalement moom xam na xam xam na li muy def mais c'est dommage que tamit demuñu Kansas defi defi ay euh, compétition ay entraînement ko waxee am na yeneen euh, yeneen euh, compétition yu mu am au niveau de Kigali ah pour pouvoir. Euh, deux vraiment matchs. deux mais fii tamit Dakar peut tamit Dakar tamit am na ñu mun na fi def ay matchs euh, déggoon naa ne avec des garçons ou des d'autres équipes yoo xam ne. pour se se préparer et puis bon xalaataan nag beneen yoon nag suñuy préparer jongante yu mel nii def un bon programme. ah programme bu baax a baax a baax ba nga xam ne ne ah du am benn gàllankoor. loolu lay discipline yëpp loolu la ñuy ñaan une très bonne préparation boo xam ne ñoom du am gànnaakooru du ñu di ñuy dem Kansas dem ñu Kansas entraîneur bi dina joxe son programme ba nga xam ne dinañ ko mën a mën a suivre parce que ñun ñëpp Sénégal du ñu bëgg mooy ndamu réew mi mm-hmm. yóbbu le drapeau vraiment très haut andi fi fi ay médailles.